FM Ribari. Hibari. FM jaajëfal leen ci ànd beeg teelu bi seen rajo Sunuker FM ci www.sunukerfm.com xibaar yi dikki ba jéggi li fi gën a fës. bokk na li gën a fës ci la xibaar daañu ko dooree ak grève bi nga xam ne nag ñii de élèves ya nekk ca lycée bu Ngane jaar ca Valdiodio daal nañu koy amal di ñaawlu rekk li nga xam ni moom la seeni jàngalekat di def ndax jàpp nañu rek nañuy jàngale baaxul waaye itam gisaguñ leen sax ca la nga xam ne mooy seen école ba tax sax compo yi nga xam ne jot nañu ko affiché ñoom jàpp nañ ni duñu ko mën a def ndax la ñu jàng bariwul ba tax ñu war a mën a def yooyu les compositions daa ngeen teewlu seeni kàddu ci yile xibaar bu ñu ca noppee daañu wax ak politique Ousmane Noël Dieng bi nga xam ni yëkk na ay kaddu daal di koy jagleel ñi nga xam ni rek ñooy taskatu xibaar yi doon janool di indi rek ay leeral ci li nga xam ni moo tax lii di APR ñàkk yële élection locale ci biir Kaolack ak Sénégal war ngër këpp buñ ca noppee daañu wax ak gëstu bés bi ñeel ko ñi nga xam ni rek ñooy dawalkatu Jakarta yi nekk fii ci biir dëkkub Mbose Kumba jigéen nga xam ni nag ñu ngi dund ay jafe-jafe waaye jàpp nañ ni rek am soxla lamb sa foos faj ko dara gënu ko moo tax ñu jàpp ci li nga xam ni rek rek mooy dawalum Jakarta ñaareelu xaaju xibaar yi ñetti ponk lay doon xibaar biti réew la ñu koy dooree taftal ci xibaar yi tàggat yaram li ëpp yëglekaay yi xëy tey moo koy buural mbokk yi ponk jàng bu ngeen taaxir loo ñu faram fàcce ko di leen jaajëfal beneen yoon kàddu gi bàyyeekoo ci cœur de ville bu Kaolack ni ñu leen ko junjee ci bopp xibaar la ñu koy dooree ci njàngameek njàngale mi ak grève bi nga xam ni moom la élèves yi daal di entamé ci mbedd yi di naqarlu li nga xam ni moom la seeni professeur di def ndax rek dañuy wéyandi di joxe ay cours ci école privée yi te public bi moom gisuñu leen sax ba tax sax compo yi nga xam ne daat nañu koy affiché ñu koy ñaawlu ndax jàpp na ñi ku gisul professeur ana nooy defee yile euh, devoir ci yi nga ni euh, école seen i kàddu dénk nañ koy Ibrahima Ka Ibrahima Lo lycémique Nganteer nga ne lu waral grève bi tey maanaam c'est-à-dire depuis presque deux mois waa lycémique Nganteer ak d'autres établissements ñoom ñoo réunir doon benn parce que dañoo constaté parce que dañoo constaté ne les professeurs ñi nekk ci public yi jàngaleetul tu. parce que dañuy grève parce que ñoom dañoo am problème ak euh, état bi parce que état bi fay leen seen xaalis ñoom nag ñoom dañuy wëlbatiku dem ci privé yi di leen jàng ñun suñ programme bi jàngalatul suñu maanaam semaine bi semaine bi waaw public bi jàngun waaw privé yi ñooy ñoo ñoom ñooy ñoom ñooy jàng te ñi ngi jàpp composition mardi bii nii bii nii on a rien fait loolu kese lañu après ñu organiser marche pacifique on a pas lancé des pierres ni fait des choses violentes juste marche pacifique ñoom ñu ñëw policiers yi dinu dinu sànni ay électromagnétique ba yóbbu suñu élément on a rien fait nañu ñun ñu ngi nii on a rien fait loolu kese mooy suñu problème loolu kese mooy suñu problème waaw suñu deux éléments embarqué leen waaw embarqué leen te defuñ dara xaa ñun defuñ dara waaw lycée waa lycée mixte Ngamser ak waa Valdiodio ñoo collaboré xaa ñun defuñ dara te ñun suñu droit kese lañ am ak suñu devoir jàkkaarloo ko Euh, presse bi wax ak wax wax ak ñoom su problème loolu kese moom euh, maa ngi lay nuyu noo tudd. waaw ah, je euh, maa ngi tudd Mamadou Lamine Dieng. maa ngi jàngee école bi naan lycée Miss Denganteer. lan moo comme sama naataango bi mu ko waxee sama xarit bi rek. ñu ngi nii di ngi gërëm pacifiquement amul benn problème. génn nañ école yëpp policier ñu ñëw fii di lancer ay grenade lacrymogène indi seen oto bi di jàpp di yóbbu di ñu maltraité comme si que ñun ay ay ay Samba booy lañu comme ni jotee seen lakk yi gërë naa lakk lacrymogène yi kenn xamul ñu bëgg kenn xamul ñu def sànq ba léegi yow yaa yaa yaay suñu témoin léegi rek am na oto bu débarqué fii ba boo yëpp tasaaroo te booy ñu ci bëri dañoo asthme ñu dañoo am feebar euh, xol mënu ñëwoon nooy comme sama genre bi man dañ maa wax sax léegi damaa xamoon te xaw ma sax lu ma lu ma xam loolu loolu daal waaw loolu lacrymogène li ñu sànni moo moo moo jàpp ñëpp te vraiment tous seen élèves yëpp leen di ñaan nag euh, euh, message bi ñu transmettre suñu même suñu censeur école yeeg ñoom ñëpp déggee ñu demee neneen di sànni ay xeer ci ay pierre loolu bu ñu neexoon ñu def ko loolu yoo xam loolu yëfu nit moo tax ñu ñëw pacifiquement te xam na xale yu jigéen yoo xam yu bëri fi dañoo feebar merci la parce que ba mardi la ñu war mardi bii nii nii la ñu war a euh, loo xam ne war nañu ko jàng premier devoir yi defuñ benn devoir nii au niveau au niveau des écoles des écoles publiques école privée yi def nañ da ngay dégg ne def ak ñun moo tax euh, léegi nii rek na école yu ñu doon génne nii xaw ma pédago xaw ma ñu ngi doon ñu ngi doon def seen seen seen seen seen devoir euh, premier semestre bu wàcc composition mardi loolu lañ doon lañ doon lancé yéen en tant que pour ngeen lancé message gannaaw njàng meek njàngale bi dañu àddu jëm ci wàllum politique ganaaw ba nga xam ne rek élection locale yi daal di nay jàll fii ci diwaanu département bi nag ba léegi kàddu yaa ngi woy di des ci gémminu askan yi bu ñooñu Pape Demba bi tey yi jàpp ni rek ñoom ñoo daal di gagné li nga xam ni mooy département bi bay fête seen victoire waa ànd nawle ànd liggéey ñi ngi ñaawlu li nga xam ni rek moom lañ def ndax dañoo bëgg fuqati ndamu Bengelum ci ay loxoom bu ñu ci ki nga xam ne rek mooy Cheikh Cheikh Baye Mbaye di membre ci coalition ànd nawle ànd liggéey ba tax rek muy woo autorités yi ñu daal di rek def li nga xam ni mooy transparence jëm ci wàllum élection ñeel li nga xam ni mooy département bi ñu teewlu ay kàddoom si micro si Cissé président Serigne Mboup ak président Ahmed Youssouf Bengeloum Kaolack daf leen a itteel bañ jug daf diagnostic daf jàngat ci Kaolack ba xam ni ñu war a ànd ak ci Kaolack ñi taxaw nag di revendiquer loo xam ne dafa dal kenn ci suñu candidat yi muy président Ahmed Youssouf Bengeloum nga xam xam ne dañ koo dëxañ ci biir programme 3 muy seetal suqali sàmm ñu ànd ci biir Kaolack yëpp ci biir commune bi ci département yi battre campagne boo xam ne fépp fu ñu dem daf ñuy leer la ne kat ñu ñu yeewu nañ ñu dem ba heure bii nag am ay ni jug di taxaw di jéem a def ay tappale naan gañe neen ci ay wax yoo xam ne teguwul fenn élection yi passé na dañuy xaar résultat global yi mu génn waaye tendance yi nga xam ne moom la am moom lañ am fii ci Kaolack commune ak ci yenn ci département yi mën nañ koo leeral wax leen wax leen ne leen kat élection yi ñun ñoo ko gagné à quatre-vingt-dix pour cent te loolu dinañ ci indi ay firnde ndax Kaolack Kaolack commune ñun ñoo ko gagné largement commune yi nga xam ne commune bu Kahone dañ koo gagné commune bu Sibassor ak commune bu Jabel beneen parti moo ko gagné boo xam ne bokkut ak Benno Bokk Yaakaar te Kaolack boo demee 14 communes la Dakar laa ko jëlee Kaolack mi ngi nekk 14 communes boo demee ba ci biir département bi commune bu mel ni commune u Ngéyjeen nga xam ne commune bu mag a département bi lu mu gàtt gàtt quinze mille voix ndax quinze mille voix ndax nit mën na la ko rawee nga xëy ñëw bu fekkoon ne sax ay mille voix la wala ay deux mille voix waaye quinze mille voix te boo ko loolu boo ko comparé ci wàllu politique ñun niñ gañee ak yeneen coalition yi nga xam ne moom lañ moom lañ am mu yewi askan bi ñoom mënuñoo gañee ndax boobaa balotage dafay am ñu xam politique xam nañ luy balotage kon nañu liñ bëgg ñu xam mooy ñi nangu xam ne kat dañ doon compétir te gagné nañ leen te Kaolack waaye ñoo def choix ci président Serigne Mboup ak président Ahmed Youssouf Benjelloun dañoo bëgg nag ñu a ma seet nu ñu war a def lan moo tax Kaolack waaye óoluwuñ leen suñu ngañaali daal kenn du ko nangu kenn mënu koo nangu ku koy jéem nag yaa ngi nax sa bopp gannaaw Cheikh Baye mbay keneen ku daal di àddu ci bile situation di Serigne sàmb moom itam daal di ne janoog taskatu xibaar yi rek di saako ci ki nga xam ni mooy Pape Demba bi tey mu nangu ni daal di ne ñàkk ci honnête bu euh, am solo waaye tam bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom ak ay membre yu nekk ci ànd nawle ñeenañ du bàyyi rek euh, seeni loxo ndax rek li ni mel ñoom ñoo ko moom Serigne Samb ay kàddoom dénk na ko Junior Cissé. ñoom reconnaître nañ ni moom xam nak euh, suñu xarit suñu euh, Ahmed Youssouf Benzoul fi mo fi euh, benen camp bi nga commencé di manifester di di di andi ci ñu di à la revue nak xamal leen ne wax dëgg yàlla ku gis li nga mom la vote bi départ 52 le l'électorat département bi gagné juróom ñetti dëkk yoo xam ni gañe nañ te écart bi nga xam ne moo am diggante ñun ak ñoom ci commune bi mënuñ koo combler ci département donc nag ñiy woo Kaolack waaye di leen xamal ne leen ñun euh, ñi ngi toog euh, en gentleman nekk ay nit ñoo xam ne ay responsable lañ nekk nit ñoo xam ne ay démocrate lañ te it gëm nañ ni juste su dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Sénat bi ñoom dinañ liggéey liggéey bu war léegi nag jarul ñuy xëccoo di xiiroo ko ngaayoo te xam ne ay lobby yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw euh, Pape Demba bi di ko pousse pour ñu mën a salfaañe wala ñu nësaxal xelu doomu aadama yi yaakaar ne gañe mu léegi nag ñëpp war nañoo xam ne la coalition ànd nawle ànd liggéey dafa gañe dans le département gañe dans la commune léegi nag ñi ngi interpeller les autorités étatiques di leen xamal ne victoire bi nga xam ne am nañ ko yaakaar naa ne du ñu gañe suñu victoire ba pare ay doomu aadama jógee fële di ñu ko yaakaar gannaaw ku jekk politique yi nga xam ne rek ñoo fari ci biir nguur gi ku ci mel ni Ousmane Noël Dieng moom itam daal di nay eh, jàkkaarloog tanas taskatu xibaar yi di indi rek ay leeral ci situation bi nga xam ni moo am ci biir coalition bi ndax jàpp na ni am na ay diffision yoo xam ni wala boog ay décision yoo xam ni ñenn ci ay leader nangu wuñ ko waaye tam di dëggal ni yenn ci ay militant APR ñoo voté ki pour eh, ki nga xam ne rek mooy Serigne Mboup ngir mu mën a gagné lii di commune bi Cheikh Tidiane daan soxo ci bi

fi 10 000 femmes ana 10 000 nangaan nga dëkk bétuwaar mais dañu door foofu nga bi nga xam ne coalition Benno Bokk Yaakaar am na ko ci élection gox-goxaat ci commune yu mag yi daal lu rëy ci seen biir rawatina fii ci dëkku Mbossé Kumba def jàngat ci li xam ne rek mooy yéene élection élection locale yi amoon ca ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier muy taskatu xibaar bi di Aïssatou Diop Fall di liggéey ci kër googu di TFM moom itam jàpp nañ li di coalition Yewwi Askan Wi dafa nekk rek ab demande sociale te sénégalais ñoo daal di rek at diggante nguur gi ak kujje gi waaye tamit li nga xam ni moom la Macky Sall def muy yenn ci ay choix teg nit ñoo xam ne rek mérito wuñ seeni place loolu moo ko jural mu daal di ñàkk yële élection ñu teewlu ay kàddoom ci micro suñu Kër FM. profi ñi ñu fal xoola profi ñi ñu fal yu bëri yeewu askan lañu fal gis nga yeewu askan ñu fal nag c' est la demande sociale la boo xoolee bu baax bu weesoo seen offre beeg seen nangam ak nangam li ëpp solo sénégalais yi ñoo ne tout sauf Macky Sall la en réalité c' est Macky Sall qui vient encore de subir une raclée de la part des sénégalais qui l'ont déjà dit en mars de l'année dernière président Macky Sall attention les sénégalais lui ont montré un carton jaune waaye li ëpp ci li tax ñu gagné mooy mu laa lay wax mais xoolal yow askan ña photo fii voilà euh, leader yi yëpp dañ jëloon ñu ko Ousmane Sonko ak Bardia majeur part keroog kon ma bàyyi am ak mais ñoom ñëpp lan lan moo tere moo rëccu nañ ko je suis je suis moi que leader yi yow askan xam ne présenté wuñu seen candidat rëccu nañ parce parce que lii am dootu amati mooy li ñu gis nga ko bu la yàlla tàccoo nga bañ a fekk dootoo raas parce que mais boo gisee xoolal razzia bi am xale yi nu ñu tout simplement mooy li ma ñoo mere. mu ngi noonu Aïssatou Diop Fall ba tey moom lañuy ñuy descendi ay kàddoom gannaaw ba nga xam ne nag wax na euh, ci euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak risque bi mu jël rek dem investir foofule ca Ziguinchor li nga xam ne mooy vote sanction mi nga xam ni def nañ ko ba mu jural la njiitu réew mi daal di ñàkk li nga xam ni mooy élection ndax ñamu teg ca yenn diwaan yi mérito wuñ sax ñu euh, tegu leen foofule ñu teewlay kàddoom ba tey. def lu rëy loo xam te gis nga dans la vie il faut être courageux xam nga courage la mooy li ma wax sànq ne ñi nekk ci yooyu askan wi te déposé wuñu seen candidat yu rëccu parce que xam nga lu tax Sonko il a choisi il a pris le risque dem Ziguinchor mu dem Ziguinchor Macky Sall a joué et perdu dafa ay mig magam parce que dafa am ay candidat moom Macky Sall dafa am ay candidat officiel yoo xam ne ko xoolu Diouf Sarr ñoom ñoo ko yàq la xool am ay candidat officiel moom Macky Sall ñii mu saraxe leen gëmu gëmu leen ñi mu gëm ci suuf ñooñu la financé dooleen leen ñoo ñoo dem di xeex benn bokk yaakaar même chose a def aussi fële Ziguinchor Ziguinchor ma je suis sûr moi que s'orienté wul ak Ablaye Bal dafa jël na Diouf kii Benoît Sambou ak ak Sane Seydou Sane teg leen ci kaw mais Doudou Ka li mu def lan la mu def ñukk ñee dem ànd ak Ablaye Doudou Ka mooy li ma wax rek ne Macky Sall li mu bi donc day moo créé ay ka yooyu nga xam ne incompétent ay nulaar ñooñu façon xeet boog énergumène yooyu ñoo fees dell ci ñoo ñooy ay bii xam ne yow ku jël ku dee ni bii bi baax ñu tuumaal ko ma kontaan ci résultat yi dama wax dama yàgg wax ne politique la mais su éthique ak moral da cee baax <laughs> benn sénégalais sénégalais yi nee naa six yëpp nekk ay parti politique ñu toog dañuy seetaan si internet yi di mm-hmm. déglu Ndiaye di déglu Pape Ngagne di déglu kii ak kii x y di xool di natt Sénégal day xel ba ñu doyoo xool gis ne ñii Macky Sall mi ngi tegal ay nit xam ay anti di protéger réew ay anti la Macky di pro di promouvoir ñun ni ay nit yu tekkiwul dara def ku ma am ndey am ku ku amul ndey injustice teg ko fi nit ñi lekk ñu naan ñu mu ñëw diñu xëral diñu diñu ak ay teer ak ay meer ak ay kenn xamul ñu jeexal la pàcc ku njëkk gi eh, gannaaw ba nga xam ne rek ñeen fukki simili ak juróom-ñett moo bootu ci benn waxtu dañuy wax ak métier ma jakarta maan yi nga xam ne mi ngi ci diwaanu Mbose Kumba jigéen ak jafe-jafe yi ñuy dund waaye jàpp nañ ni rek am sa soxla lamb sa poos faj ko dara dàq ko moo tax ñu jàpp seen liggéey fonk ko ak seen i fukki loxoog juróom nekk rek dañuy si lañ leen suturu ngir rek lu ñu yóbbu seen kër yi ñu teewlu jàngat bi ak bu monte ne day xëy gis liggéey ci diwaanu Kaolack jafe na lool mu toll nii waaye nag ndaw ñu bëri bañ a xëy rek toog uti nag ci lu ñu jàpp tax rek ba ñu dem ci dawal Jakarta Farba Diouf ñu fekk ko ci bokku moomeel bu kaw Kaolack moom moomee ñu waat na rek ci li nga xamante ni moom moo tax mu dugg ci dawal Jakarta. damaa nekk soutien de famille boo xam ne di dawal di yóbbu sa kër ga. daal looloo tax ma dugg si Jakarta. dëkk bi dëgër na métti na surtout ma corona bi ñu fuñ toll nii métti na trop essence bi soo xëyee pour nga am 5000 sax du yomb euh, bëgg a jënd a yóbbu sa kër ga non métti na de trop. ci beneen wàll wa El Hadj moom itam mu ngi feggoog ak natangom bi di Farba djouf di ñëwaat rek ci seeni digante ak dawal dawalkatu taxi gannaaw rek ba ñuy nekk ci mbi ciok mbalo rax doli wax ci digante mak ñi nga xamne ne ñoo di takku der yi nekk ci dëkk bu kaulak taxi man so gisee lu tax ñu xeex borom jakartaay neenañ borom jakartaay lepp li sa li ñi am ñom duñ ko am borom jakartaay ben mama da nga xëy itaa nga daw onze mille tanga nga daw douze mille xamula de pare ben instant ak añ ñu leen yóbbu ñom ñoo ko leen yóbbu te añ yi léegi tay borom jakartaay ñoo koy dajale yóbbu tak der yi maanaam gis boo yoo xam ne dañuy xaw a dëgër bopp problème boobu ba pare te maanaam casque bi aar la quoi ba pare bi ñu la laajee ko war a mën a euh, takk quoi te masque bi aar sa bopp la tamit ndax ko ko war kuy daw la war a mën a takk masque bu ngay yeb du war a mën a takk masque quoi ndax feebar bi dafa wax a bëri Farba Diouf ñu waat di xamle ni ay moromam ñi nga xam ne ñu ngi toog ci kër ga rek di xaar ci état bu Sénégal war nañu bàyyi xel ne liggéey làmbu sa poos faj sa soxla dara dàqu ko xam na ñu baax na ñu bon waaw mais l'essentiel ñun dañu xam lu a ak euh, liggéeyam affaire yi moom lépp liggéey la doomi aadama danga nga war a liggéey liggéey teg si njub di leen di lancé appel métier bi dañ ko war fonk dañ ko war a respecté diwaanu Kaolack ngir nga gis fi liggéey jafe na jamono ji rawatina itam ci rekk nawet bi ñu nekk dawalkatu jakarta yi ñoom nee nañu ñu toog di xoolee gannaaw jàpp nañu ne am sa soxla faj ko dara dàqu ko donte ne itam ñu ngi si jànku wanteel ay jafe-jafe lii la ñu xamle ñoom dawalkatu jakarta yi nekk ci diwaanu Kaolack bu xamandu waxo juróom fukki simili moo bootu ci benn waxtu ñu xuus si ñaareelu xaaju xibaar yi ñaareelu xaaju xibaar yi dañ koy dooree ak xibaar yi bi ci réew ñu teewlu ko

amoon na ci diggante ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 2020 foofule ca Macenta bi nga xam ni nag lu toll ci ñaar fukki doomi aadama jotoon nañ fa ñàkk seeni bakkan jëm ci ay coowoo yu jëm ci wàllum patrimoine historique bu Masséna bi nga xam ni moo déclenché woon boobule violence ci xayma lu toll ci juróom-benn fukki doomi aadama daat nañ leen jugé fukk ak juróom-ñaar ci ñoom daat nañuy nekk en fuite maanaam dañoo daal di làqatu ñoom nag perpétuité lañ leen daal di daan benn ci ñoom daal nay nangu ni moom moo assassiné maanaam faat ki nga xam ni bokk na ci ñi nga xam ni nag ñoo doon faate daal nañu koy daan lu toll ci fanweeri ati kaso ñaar ay prévenu ñoom te nañ leen lu toll ci fukki fukki at ak juróom gannaaw bañ bëggoon def ab tentative de meurtre ci fanweer ak ñeenti doomi aadama foofule daal nañ leen di acquitté ñoom dellu nañ seen kër ya ñu woyal xibaar bi ci réew diwaanu Burkina Faso gannaaw ba nga xamee ni nag ab coup d'état daal dinañ am partisan ya fare ca putschiste ya ñoom daal dinañu amal la ab dox ñaxtu wàcc ci mbedd yi ni ki démb rek talaata yam ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2020 ci bëccëg gi nag ñoom partisan yooyu nag daal nañu envahir li nga xam ni mooy mbedd Burkina Faso ya ca capital ba di Ouagadougou ngir rek daal di jël seen réew moomu rek teg ko ci loxo ñu wóor rawatina appel bi nga xam ne nag Burkina def nañ ko ngir célébrer boobule coup d'état nga xam ni def nañ ko a ci kaw kii di Roch Marc Christian Kaboré ñu jeexal la xibaar bi ci réew ca diwaanu Madagascar bi nga xam ni nag moom moo jël a téeméer ak ñeent fukk ak juróom place ci téeméer ak juróom fukk yoo xam ni nag muy dëkk yi bokk ci gën a nekk en corruption ñi def li ni mel nag di indice bu perception jëm ci wàllum corruption ñoo daal di xam ne ni Madagascar moo jël place lii di transparence Transparency International international dat ne dévoilé ni ki rek résultat yi jëm ci indice mondial de perception bu corruption ci atom 2021 ci téeméer bo jël ñaar fukk ak juróom benni dëkk yo xamni rek nañ di ci zone rouge Madagascar ci la bokku ak score bo xamni nak mo dal di ëppalé dëkk yi nga xamni ñoo ci kawam waral mo ni ay organisation yo xamni dafa jëm ci walum détournement d'argent public waaye tam ak absence de poursuite pénale yi nga xam ne nag yu bëri dañ ko daal di effacé foofulee ca dëkk ba tax ñu daal di koy placé rek à cent quarante-septième dëkk boo xam ne ci àdduna bi moo fa ëppale corruption mu ngoog xibaar bi ci réew daal ne buur canta ngërëm ñeendal mu ngoog gannaaw xibaar yi bi ci réew dañuy daal di àddu rek jëm ci li nga xam ni mooy xibaar yi tàggat yaram xibaar yi tàggat yaram dañu koy dalal moom coach Abdoulaye Senghor maa ngi lay ziar. delloo ziar soxna Ndeye Marie. waaye nga am jàmm. ñu ngi sant alhamdulilah. ay ca xibaar yi tàggat yaram ana lan moo fi gën a fës ci biir Sénégal ak biti réew. mi ngi donee xabaaru euh, tàggat yaram des mën na koy dox rek euh, victoire gaynde yi ni ki ni dem bi nag ci kaw ñi di waa Cap Vert nag euh, boobu la ndam nag daal di nay envoyé ñi di gaynde yu Sénégal ci quart de finale Coupe d' Afrique des Nations loolee nag doon ab ndam li nga xamante ne nag moom sélectionneur Aliou Cissé nee na nag kontaan na ci bu baax a baax naam sax am na yoo xamante ni dañ ko war a xoolaat eh, ci équipe bi ni mel ndax nag li nga xamante ne moom mooy animation offensive yi eh, jàpp nañ ne eh, des na ba tey ji nag waaye nag bu liñ a jàpp rek mooy qualification bi moom mooy li am solo moom Aliou Cissé ne kontaan na ci bu baax a baax ci loolee nag Sadio Mané nga xamante moom moo daal di dugal ci boobu la jongante nag daal di génn ci ab blessure nag ñu ngi xam ne sax moom mi la daal di nay wér pëng rek delluwaat ak coéquipier mu doon li nga xamante ne nag doon na lu tiitaloon waa Angleterre jëmale ko Eh, seen ndaw loolu di eh, Sadio Mané ndax nak ragalon nañ mu fa ap gañu gañ bi nga xamante nak mën na koy sori nak nga xamante Liverpool eh, mu ngi tollu ci li nga mom moy Ligue des champions bu ñu bàyyeekoo foofu rek dañuy waxani ba tay walu Coupe d'Afrique des Nations nak ak la nga xamante mom moy mooy drame ba xewon ci diggante match Comores ak Cameroun nak waa fi ñu ci benn nak observateur yi di daal di duut nga mom moy samir eto di président confédération président ngeen ma fédération camerounaise bu football nag ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy Cameroun ndax jàpp nañu sax li nga xamante moom mooy mesures yi ñu waroon a jël ci euh, boobu jongante nag doonul ay mesures euh, mën a tere rek euh, supporters yi daal def li ni mel nag loolee ñu ci dut baaram moom Samuel Eto'o loolee nag mooy mooy daal di kërmal sax li nga xamante ne moom mooy coupe d'Afrique wala coupe d'Afrique des nations ci euh, bile euh, xibaaru tàggat ram né dañuy daal di euh, wéyandi rek ak ki nga xamante ne moom Sénégal di Ismaël sar mom mi la sax ñu ngi xamlé ne apte na rek ngir daldi tambali li nga xamanténi mom moy compétition gënaaw sax ba nga xamanténi daldi né rejoindre ay coéquipiers ci lu yagul non rek Ismaël sar naam sax ñu ngi am ay lënt-lënt ci li nga xamanténi mom moy ay aptitude am nak nag ki nga xamante ne moom Aliou Cissé daldi né rassurer le peuple sénégalais que ni Ismaël sar daldi né paré rek ngir rek wat li nga xamanténi mom moy compétition qualification euh, coupe d' afrique des nations ñu wéyandi xabaaru euh, tàggat yaram daal di waxandi beneen discipline di handball nag ak saison bu yees bi nga xamante ne nag daal dinañ euh, ni kii weekend bi dinañ daal di amal li nga xamante ne moom mooy ndorteel ba nag daal di koy tàmbale ak préliminaire maanaam demi finale yi ne nag ASFA bokk na ca a disputé ngir rek mën a bokkandi championnat waaye tamit ndorteel gi ak weekend bi nga xamante ne nag moom mooy weekend bu tàng buñ ci daal di nemmeeku buñ bàyyee ko foofu dañuy daal wutali tugal nag daal di waxandi euh, championnat européen naam nag bu amee ay équipe yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi nekk ci trêve waaye nag terewul benn yoon yeneen i championnat ñu ngi daal di euh, dox noonu sax la daal di doxee ca diwaanu Belgique nga xamante ne nag Standard Liège ni ki tey dana daal di laaleeg CAS Open bu 17h45 jotee Anderlecht dana laaleeg Cercle Bruges Sereng dana laaleeg Beerschot ca beneen wàll ga nag ca Écosse nag ba jàppale ni sax ñoom ñu ngi nekk ci li nga xamante ne moom mooy seen dernière ligne droite ci seen championnat United dana laa Rose Ross County bu 19h45 j'étais Celtic dana la lekk Hearts bu 19h45 j'étais Rangers dans la lekk Livingston Saint Johnston dans la lekk ñi di Dundee FC ci diwaanu France nak jàppale ni sax Angers ni ki saint etienne ci walu Ligue 1 sénégalaise ñu jéxalé rek li nga xamanteni mom moy 8 huitième de finale Coupe d'Afrique des Nations bu nar huitième de finale yu muju nak niki Côte d'Ivoire dana la lekk Égypte bu 16h jotee Mali nara la Guinée équatoriale bu 19h jotee mu melni ni gaynde Sénégal dañuy xaarandi rek kii nar a daan ci diggante Mali ak Guinée Équatoriale ngir rek ñu xamle seen adversaire ci quart de finale Coupe d'Afrique des Nations mu ngoog xabaaru tàggat ci xam daal nay buux canta ngërëm ñeel na la cant ngërëm ñeel na ko moom coach Abdoulaye Senghor ci li nga xam ne rek mooy xibaar yi tàggat yaram neskiis ñu dëkk ak yéen ci ponk mu mujj ci xibaar ëttu yëglekaay yi xëyee tey dañ ci ànd ak Junior Cissé dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga sa jàmm kañ jamono ji mën nañ ne fële ca diwaanu Casamance amatu fa rawatina ci diggante ñii di soldaar yi ak rebelu MFDC yi yéenekaay bi di bés bi le jour daal di ci xëy niki tey naan ñu gannaaw ba nga xamante ni ñaari jàmbaar daal nañu ñàkk seen bakkan ca diwaanu Gambie juróom-ñeent jamono ji daal dinañ leen di jàpp en otage ñu def li nu mel du ñenn ñu dul rebelu MFDC yi noonee rek bi duñu xamal ne l'armée bi daal dina ñuy amal ab riposte ba noppi jàpp lu toll ci juróom-ñaar fukki camion yoo xamante ni dafa defoon ay bant ñu daal di koy trafiqué yéenekaay bi di 24 heures ci mbir mi nu mel la xëy ni ki bàyyi bàyyiwu ko benn yoon naan ñu ci altine gi daal dina ñuy am ay affrontation noonee rek juróom-ñeent jàmbaar kenn tegu leen kat mu mel ni que ni dañ leen jàpp en otage maanaam ci gàttal dañ leen teg loxo ci lu neexul seen bakkan yéenekaay bi di Sud Quotidien noonee la nu mel ak ñaar ñi nga xam xamante ni génn nañ àdduna ba ca ña ca des ñi nga xamante ni dañ leen jàpp otage mu mel ni que ni faw rek kilifa yi jóg ci lu nu mel wax ci ngir mbir mi saafaraw balaa moo jéggi dayoo ndax jàppal yéenikaay bi mi ñuy xamal ne situation bi nu mel moom moo tax daara yi ca diwaan wa dañ leen mujjee tëj ca kenn mënul dem kenn mënul dikk ña nga xamante ni dem nañ quart de finale ñu ngi ci biir yéenikaay yu bari niki tey yéenikaay bi di léese ko naan ñu gaynde Sénégal yi daal dinañuy daan dara ñoom ñooñee bañ doon jonanteek Cap-Verdien ci huitième de finale yi mu mel ni que ni Sénégal daal dina qualifié quart de finale quart de finale googee enquête yéenekaay yi daal dina ciy ñëwaat ñeel matsub gayndeek Sénégal yi jàpp na ne am nañ dam way itamit nemmeeku nañ ci ay jafe-jafe laata ñoom ñoo door kii di Cap-Vert yéenekaay bi di Sud Quotidien naan ñu gaynde yi kañ daal dina ñuy dem ba faw lii di quart de finale évidence naan ñu bokk na ci ñu dugal kii di Sadio Mané ak Cheikh Bamba waral ba mu duppee ko Bamba jërëjëf ci ndam li nga xam te ni daal dina koy jox diwaanu Sénégal yéekaay bi di Vox Populi nag ñu dóor nañu wante ànd nañoo jafe-jafe ñeneen ñoo xamante ni jafe-jafe lañ nekkee du ñenn ñu dul waa benn Bokk Yaakaar ñoom ñoo ñooñee ñi ngi tamante dëmm jamono ji ku nekk di joxoñ baaraamu tuuma ngir ragg sa der ibbil yéenekaay bi di Vox Populi mu ñuy xamal ne ca diwaanu Kaolack Aji Mbergane te mi ngi naan askanu Kaolack sanctionné wu njiitu réew mi Macky Sall wante ay responsable politique politique yu arrogant waaye itamit yu ñàkk doylu ñoom ñoo nekk ca ginnaaw fexe ba benn bokk yaakaar daanu ci commune bi sa weneen wàll wa ca diwaan Dakar ñoom ñi ngi ñaawlu arrogance yu yenn responsable politique yi nga xamante ni ñoom it ñoom ñoo jàpp ci daanu benn bokk yaakaar mu mel ni que ni li mooy dëmm rey la jaale la ak lum ci ci doon ñoom ñooñu xamatuñ fu ñu teg seen tànk keneen koo xamante ni jamono ji réer na kenn mënu kaa defal ma moo di président Macky Sall ak gàcce gi nga xamante ni am nañ ko ci élection locale yi ay décret lay waajal ngir jël ne rek ngir sanctionné ñenn ñi waaye itamit xoolaat lii di entourage am mu mel ni que ni entourage boobe ak Benno Bokk Yaakaar seen ëllëg muy commencé jeex yéenikaay bi di lii quotidien moo ci xëy naan ñu coalition Benno Bokk Yaakaar jamono ji seen ëllëg boo moyul dina waa ñeneen ñu seen ëllëg rafet ñu ngi ci biir yéenikaay bi di réew mi quotidien di ñëwaat ak ñenn ci maire yi ku ci mel ni Ousmane Sonko Barthélémy Dias ba ci Ahmed dara ani lan lay wi di xaar ci ñoom mu mel ni que ni jamono ji ñoom ñooy jamono ji kañ ku aaye war sa moome mu mel ni que ni ñii di ku aaye war sa moome yéenikaay bi di Les Échos naan ñu ñii di waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo moome waral ba ñuy dëggal seen suprématie ci élection yi nga xamante ni moom lañ génn ñeneen ñi nga xamante ni génnuñ dugguñ taxaw temb lañ def ñu ngi ci biir yéenikaay bi di L'Observateur mu amal ab tukkib nemmeeku fële sa diwaanu Kidira mu ñuy ñëwaat ak ñun ci jafe-jafe yi nga xamante ni askan wa ñu ngi koy jànkonteel ñoom ñooñee jamono ji nekk diwaanu frontière ba ak embargo ñu def réewub Mali loole tax ba oto duggul oto génnu la askan wa féetoo ca frontière ba moom jamono ji ñu ngi lal seen basan toog di xaar yàlla ndax ñu ngi dundee ki jafe-jafe keneen ku dëkkeek jafe-jafe mi ngi ci biir yéenekaay bi di l'Observateur ba tey mu ñuy xamal ne ca diwaanu Yëmbal la ab gone goo xamante ni ay atam mi ngi toll ci fukk ak ñett jamono joo xamante ni juróom bu jigéen dañ kaa tëj ràppi kaso ngir jur doom sànni mbala rey ko nijaayam bi ko yar jamono ji ne moom moo ko violé maanaam tëddee ko mu ngoog bi beneen i kaa la ba subaak jàmm day mari taabu cant ak ngërëm ñeel na ko moom Mouhamadou Junior Cissé ci la ëtt yëglekaay yi xëy tey mooy daal di yëkkati jotaayu xibaar yi dikk bëccëg gi fii ci biir euh, Sunuker FM ci 3w point sunuker point com waaye itam 3w point sunuker fm point com des leen di woy ak suñu programme ci kanam tuuti da ngeen am di nga xam ne rek ma seen animation euh, jëm ci wàllum hip hop di ko jaajëfal moom Eli Birahim Ka euh, ci li nga xam ne rek mooy technique bi di leen ñaanal kenn dul jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf Écoute de écoutez écoute du rubrique du rubrique bu leen andil fiti radio rajo suñu Kër la la Kane ñu jagleel ko mboolem ku sopp tàggat ñu nar leen Topal Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 boy xewé fale ci diwanu Cameroun mo xam ci walu préparation gaynde yu Sénégal sen dundin ci biir bi seen walu entraînement ak yengu yengu yu ñi am ci boobule compétition du Coupe d'Afrique des Nations Écoute écoutez la canne ci suñu Kër new career